presque na boo ko déggee tur bi nu mu wéyoon maanaam fecckat bi tamit loolu la mel parce que fu mu toll nii moom euh, mooy lëmbay lii di Sénégal presque. waaw maa ngi lay fay di la ziar di nuyu ki nga àndal di la wax ni que tey am euh, gis clip bu ñu gis Sénégal presque si biir nu mu demee nag. waaw sant yàlla rek di liggéey normalement respecté suñu bopp tamit ñu jox ñu respect gars yi nangul ñu lu ñu lu ñuy def xam ne lii talent la ñu ñuy woo di ñun loolu kese mais mënoon na demee neneen. peut-être dafa mel ni am group boppam wala dafa am foo xam ne euh, fa nga jaar ba daal di agsi fii. waaw sama groupe bopp laa am nag sama groupe bopp laa mooy li may àndal ak ñeneen. boo mhm. gisee fu mu toll nii aar bi ak sa relation ak yéen fecckat yi. man jàmm jàmm ak salaam laa laa laa laa sekk ñoom bien vrai que lu may génn du bëri sax parce tamit sama jàng bi daf ma xaw tënk. mais jàmm laa sekk ñoom jàmm dañuy déggante di kafa foofu suñu milieu entre ñun moom moo ko connaît. dañuy reetaan dañuy foo soxorante wuñu suñu biir mais yàlla jàmm yàgg yàlla bu mu jeex. ça veut dire que moo ngi boole fecc bi ak lii di jàng. waaw waaw maa ngi boole ñaar yëpp moom. ma. maanaam lan lay jàng lan lay jàng. marketing communication laa nekk licence 2 licence. ok boo gisee maanaam loo xam ne mooy nekk actualité moo nekk actualité boo nekkee fecckat bi bokk nga si loo xam ne euh, loolu lépp lu xew si artiste rek war naa xew si yow euh, boo gisee Sidy Diop ak kii di Wally Ballago Seck ñu naan concurrence ñu naan ay classe noo gisee loolu. ah peut-être musique bi moo ko laaj peut-être que tamit concurrence bi si ñoom ñaar xam nga man de feccal naa la ñoom ñaar ñëpp seen clip ba si clip bi mu mujj mais bon mais bon xam nañu daal gars yi xam nañ ñuy liggéey ak ñuy liggéeyul franchement ah, ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lañ nag mais voilà quoi comme que affaire way la maa ngi si fecc bi man. jàpp nga seen lu normal la. ah peut-être lu normal la peut-être que showbiz bi moo ko laajte parce que dañ koy gis si rab mais bon moom je xam nga nekk sama cours wax si fecc bi si moom laa xam moom laay def donc ku fi génnee tamit di concurrence man moom xaw ma quoi franchement concurrence bi quoi. mais léegi gis ne euh, booy wax nga kii di Sidi Diop waaye ti fekk ngaa kii di Waly Ballago Seck tey xool ñoom ñaar euh, ban clip moo si si nga nekk si si nga gën sa bopp. ah nag clip bi mujjee génn demagul fenn mais si laa gën a sànni sa bopp man Waly Seck yoon bi laa ko feccal ak bii passé Sidi Diop choc choc bi lañ fecc mais tamit. comme que bii moo mujjee génn moom <laughs> bi laa sant sama bopp franchement. bu la waatoon même jour même heure Sidy Diop Wally Ballago Seck fooy dem. ça dépend si cachet bi rek. même cachet. même même cachet. même cachet. ah. non ma xool kenn mooy ku si ëppale rek ku si mën a man ku si tolloo la ñaari cachet ma ne leen doole leen rek ba kenn am kenn boo ne soxla ak après suñu mënee jëli keneen wala xam voilà parce que man damay job. mais benn 24 heures 1 million de vues ak leneen du benn. non je suis pas nekk fi di frimer wala dara parce que damaa damaa gis dama gis te gis naa ni muy comporté woo ak gars yi tamit il bosse waaw peut-être que Sidi Diop benn yoon la ngi fréquenté muy jour boobu parce que te amuñu sax apport dugg dugg dugg mais Wally bokk nañ tournage dem nañ ñëw nañ te gis naa nu muy nu muy nu muy comporté woo ak gars yi franchement c'est c'est c'est un gars performant franchement. merci beaucoup Presse. merci beaucoup à